rajo Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf 9h40 10h moins 20 euh, ci RFM ci Sénégal ñu leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm jaajëfal sa mbay euh, mi ñu nekkal ci technique bi ci digital bi jaajëfal Abdou Thiam ak Amady Ndiaye mais également euh, di nuyu sama gaay Diagne Malal mi ngi ci yoon bi léegi mu yegg si Ababit Ababakarit mi ngi ci yoon bi léegi mu yegg si. ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen ñaanal jàmm di leen xaar waaye laata ñuy sori kon ñu gërëm partenaires yi nga xam ne ñoom it ñoo ñuy gunge ci xalaas dellu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ci partenaires yoyé dañuy tambalé ak euh, gan gu gan gu bess guñu guñu fekk ci wala may sa nga bëgg ñu tambalé ay ci kon nañu tambalé ak universel pousse gamme universel pousse de air naturel nga xamantene ji produit naturel yi ñu ko défaré disponible ci boutique yi jay produit cosmétique yépp ay lool nak ki xeex karaw yu daanu di améliorer sen densité capillaire dafa am lotion super active am huile de barbe am pommade moelle de bœuf lool lepp liko taxajuk moy di topoto sen karaw diko dundal du sekkal ni ngeen ko bëggé lool moy gamme capillaire euh, gamme universelle pousse de air naturel ku ci bëgg dima ko bo ci boutique yi jaay produit cosmétique mën nga ko fam gamme bi yépp bu la nexé tamit mën nga woté ci 70 336 05 53 70 336 05 53 may sañu dem ci benen partenaire moy Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous des champions yu mag yi ñu ragné lool ci ci lunette Optique Vision Plus Sénégal c'est numéro de téléphone 33 821 54 57 77 479 63 38 du Téléwa Sénégal Les champion yu mag yi mën ci lunette Optique Vision Plus Sénégal spécialiste ci walu lunette ci biir réew mi Optique Vision Plus Sénégal Optique Vision Plus Sénégal borom lunettes partout et pour tous indi len ay verre vision de près wala vision de loin à partir de 15 000 ay progressif avec anti-reflet ci 35 000 boutique Optique Vision Plus Sénégal fu ngeen dem ci réew mi mën ngeen ko fa fek. showroom bi mi ngi ci Dakar mais bu ngeen demee Kër Fall Louga Saint-Louis euh, Touba Thiès ak fi nga xamantene ji Mbour euh, boutique optique vision plus Sénégal mi ngi fa ngir di leen toppatoo di leen taxawu ci wàllu lunette ñu leen di jaajëfal euh, bu euh, baax a baax ñu gërëm waa Dragon Dragon nga xam ne cuuraayu bant la boo xam ne dafay rey ay yoo. dragon ci jamonoy nawet bi képp ku bëgg nelaw ba yandoor képp ku bëgg di noppalu képp ku bëgg a feex del jënd cuuraayu bant dragon

bi voilà, wala biy tànk baax lool nag ci 77 276 93 14 77 276 93 14 wala 78 143 65 33 Bataille, Dragon mën ngeen ci 77 513 69 61 wala ngeen dem ci euh, jardin bi lu ngeen soxla ci gaamu dragon di ngeen ko fa am comme niñ ñu koy gamme de produits dragon agréable aussi confortable aussi ñu jeexalee ak euh, partenaire bi nga xamante ne ji le ñëpp ko soxla ci jamonoy tàngaay bu dul tàngaay sax dañ koy soxla rawatina ci jamonoy tàngaay mooy Malaysia anti transpirant anti odeur am na humo vétiver nga xam ne mooy déodorant biñu ñu jagleel góor ñi am na Malaysia Fresh Care bobu déodorant pour jigéen la amna bonbon Malaysia eau de toilette pour enfants. nga xamante ji xet gu deex ci mom la fekk bax numéro téléphone bi ngeen mën et ay information wala def sen ay commande ci euh, Malaysia moy 33 823 09 98 wala 77 516 93 49 di leen muy Malaysia muy euh, Universal Pouce muy euh, Optic Vision Plus Sénégal wala Dragon sama ñaari Dragon yegg si nañu. ko ah, yow ngi ñëw maa ngi ñëw doo toog sa place rek. kan ci. yaa ngi gisoo bi ma may sa bëggee toogloo fi ma ne ko ku ma yëkkati laay bañ. kon dañoo xamante <laughs> léegi ah. damaa ñëw foofu yaa ngi ñëw maa ngi ñëw. waaw man de ab ah. foo nekkoon i yow maa la fi jiitu. non non man mu ma ne loolu mooy laaj bi de. fan nga nekkoon yow man maa la fi jiitu. Diagne jël ñëw heure. déedéet yow maa la fi jiitu fi dafa am règlement. man yow maa la fi jiitu. maanaam fi dafa am règlement tey Ndiaye moo ni naa ko may dafa am sponsor bu bees bu ñëw le temps muy yaatal ak yooyu may soog a yéeg. waaye ci studio bi maa la fi jiitu yow. ma <laughs> <laughs> foo mën di nekk ci kër maa la jik ci studio bi. li Alioune Mbaye Ndeex doon wax naan fa nit ngéntee di bëgg. nit a nga fay jooy ndax jaaxle. wallaay dëgg seen tardement gi man mbégte laa ci àndal. ah lu tax ah wax naa ci partenaire yi ba doyal. waaw jël nga ci sa tardé. <laughs> maa ngi siyaar internet yi ak auditeurs yi. Eh, ñu ngi maa ngi lay siyaar may ngi lay delloo oh, la nu ngeen def ak coono yi. sant yàlla fax ngeen ba indi ma ci alxames ji fii. wallaay. loolu jaaj loolu mënut a ñàkk. loolu mun ta ñàkk yaa ne moon bu réew mi soxlaa lu ma nekk dama koy bàyyi. am déet. wallaay wax nga dëgg. réew mi soxla. wallaay dëgg ñu sóobu ci xalaas yi. bisimilah. Eh, nañu tàmbalee xalaas Sidi Jaxate bii. Sidi Jaxate ma. déet. Jaxate Kabaye doxuma kooku de benn njublang la boo xamante ne ji. Ah, nee nañu diggante Ndakaar ak lay toog di dóor. la xawla wala xawla. kilifa gu mag nag li naan abus de confiance. waaw maanaam tey nga ñëw ne ma dama lay boole ak benn waay. damay jàpp na ni nga mel noonu la kooku mel. Uh-huh. mu ñëw gëmloo leen ne dama soxla ay nit yoo xamante ni dama leen di wutal visa Turquie ngi dem fa liggéey ay contrat leen di xaar. Uh-huh. ba yàgg mu ñëw ne leen au delà de visa Turquie sax. Portugal am na ñoo xam ne mën naa leen fa yóbbu bu ñu demee contrat liggéey fa. Hmm. bu ko waxee kilifa gi moom it mu am ñu ngi ko yéene. ci li mu hmm. expliqué. dem wax ak ñooñu ñooñu yëkkati frais de visa yi sii di jaxate laaj jox leen ko. Hmm. aha moom kay problème yi neen ba moom ci jëmi boppam fi mu nekk nii mooy jël xaalisam di fay ñooñu. Sidi moom nee na may. ma nga Maroc toog ci liñ ko wax. Diagne déglu. waaw dafa am koo xam ne. Sidi la tudd Sidi Jaxate mu def mbir moo xam ne bari na xam naa ñàkkut ñum ko def ñoo xam ne suñu déggee lii yenn feeñ muy mbir moo xam ne wàllu visa la ndax daf lay wax ne dafa am ay contrat ak ay tubaab yoo xam ne ay portugais lañ dañ soxla ay nit ñu bëgg liggéey foofu boo ñëwee contrat bi deux ans la après nga dugal xaalis frais de visa yi ñoom ñoo lay wutal séjour wutal la liggéey après bo kiyee ñu fay la la nga fa am mais lim lay wax lépp nak mohammed du dëgg buma la tegaloon audio yépp da nga nan ki nirut sax né nitu kat la waaye xaliss yi ci dugg ba pare mu jaar ci sama tur lool mu ma metti manam bim la ñëwé def la proposition bi dafa am ay nit yoo ko dafa am ay nit ñu mako bolél man ki tax ma xam ko mi ngi fi bima bolé ak mom momo tégal tegal ci waji né ma xam na ko ñoo nekkoon Maroc waji la nekk ñu dugal ci mu ne ñetti dafa soxla ñetti Portugal benn bu ne 135000 bu mu yag mooy na yokkat 15000 mu ne 150000 ñu duggal ñetti yépp benn bu ne 150000 mu ne dafa wat ñenti turki benn bu ne 65000 65000 ñu soixante bo pour lan la. frais de visa yi la wax léegi bi frais de visa yi duggé nak mom sa suñu daf lay wax ni daal euh, rendez-vous yi mu ñew ba bis jox ma rendez-vous turki ba ma na xalé ba dem ba fofu ambassade turki heure bi mu jox 11h la jox ban fa demee ba ñu toog fa ba midi ay quelques une heure mooy ñu toog di xaar ma woo ko jotuma ko mu audio ma ne ma sëñ bi dañoo mujj annulé bon euh, li nga xam ne mooy euh, rendez-vous bi. fekk booba yow ànd ak ñi waroon a utal visa. waaye Mouhamed loolu moom ma ci gën a metti parce que man kenn mosuma yàpp fii kenn mosuma dégg ci yooyu mais ànd gi ma ànd ak ñoom ba foofu mu jox ma rendez-vous li muy wax rien tout la moom ma ba xaalis mi ngi tëdd ci moom nii. li tax nag may alerte mooy dafa am ñoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi ñu mel ne Siri Jaxate mi nekk diggante Dakar ak Maroc ak feneen ak feneen moom marché bi nga xam ne mooy Médina ca Maroc ñu koy wax marché Médine ñëpp xam nañ ko gis naa koo xam ne ñu ngi jokkoo xam na ko bu baax am na ñu ko xam mais li tax may alerte mooy moom dafa am numéro boo xam ne daf koy joxe muy 77 142 60 képp ku ci dugal sa xaalis ñàkk nga koo mën a doon xaalis yi man fayagul na ci 300000 te dese na presque 250000 cent cinquante te lepp lepp ñom Sidi mom lañ ko joxon Sidi lañ ko jox. léegi yow lan motax nga koy fay. li ma bolé ak mom motax parce que ñom dem ñëw nañ sama kër ñewati fa da ci am ño xamé ni que dan ma rouss rek air heure bii kon fekkatu ma fi maa ngi ci bi parce que euh, lu gëna ndaw nit tëdd na ci lolu way amna lo xamé ni que bu la yalla bolé ben famille bi euh, nit di dër sa kër nit ñu xam luñ fay jabanté day nirey luus te ñoom ay dëkkandoo lañ te lu ñaaw mosul xàcc diggante ndax mosuma dugg ak ñoom ci dara ci lu wàllu demee noonu lu baax moom ma ci duggaloon ak xol bu rafet yaakaar bu ñu ci duggee doon régir moo tax ma duggoon ci. mais nag donc xaalis man lekkuma caaf sax jënduma ko ci waaye teewul maa ngi fay ndax man maa xamuñu waa ji man lañ xam loolu tax ma koy def di leen fay loolu ma ci dugal nag genn wàll gi mi ngi ci biir mais nag. maa ngi alerte ñëpp rek ñu moytu waa ji Sidi mi waaye xam naa ne man sama wàllu bopp ginnaaw fayagul naa ci trois cent mille te des na presque deux cent cinquante mille et quelque kon xaalis bi noonu la toll ci ñu koy déglu. léegi euh, au dernières nouvelles lan la la wax lan nga mujj dégg ci moom euh, fan ngeen yam ci lim leen diggoon. dernière nouvelle yi ma am ci moom moom bi nga xamee ne récupéré na xaalis bi dafa ma wax ne ma. après ñoom danañ war a mën a jot jox leen rendez-vous euh, yi pour ñu war a dem jëli seeni i euh, visa loolu lépp amul mujj na soo koy audio day déglu audio yi mais da koy lire mais du la tot. mosu ngaa gisee teg moom. mosuñu gisee photo papam rek la defoon ci euh, profilam mais bi ma ko laajtee Maroc ba ñi ko xam wax ma ko boo gisee waa ji njool la te xeeral te itam day wax ne njaareem mooy foofu la dëkk. léegi ki leen boole woon moom ndax yëg na histoire bi ak bi mu ko yëgee lum lum la ci wax. yëg na ko bi problème yu amee dama ko woo téléphone wax ko lépp ne ko man bu ma xamee kii yow yaa tax yaa ma ci waxoon lu tax ma xam la yow xam naa say waajur jigéen sa papa xawma ko waaye xam naa say waajur jigéen te seq nañ teraanga waaye bi nga ma booleek moom it yow danga ma waroon a wax ne ma kii nii la mel moom mu ne xamutoon ne waa ji noonu la mel mosu na xam ne kii dóorkat la. am na audio yu ma envoyé yi mu wax ak waa ji ne ko kii kilifa la te fi mu dëkk kenn yabu ko fa te mu kenn mës koo dégg ci kon bul ma yàpplu audio yooyu envoyé na ma ko. léegi yow lan moo la dugal ci ci affaire bi dafa am loo ci doon séntu ñi ngi ko boolee say mbokk lañu dafa am luñ la ci fay lu tax nga nga dugg ci. dama ci duggoon ngir ngir man gis naa leen ne jàpp na ne war nañ cee mën a dugg réussir waaye seetlu naa ci yàlla ne benn dërëm séntuwuma ko ci. ku dee ak sa ba bàmmeel wallaahi wa rabbul mukka ba mu saraf benn dërëm gaañewuma ko ci te ko ci woon man dama li ma ci jubloon mooy ñoom nan réussir rek luñ ci am muy seen wërsëg ñu dimbali seen bopp dimbali seen famille loolu laa ci jubloon waaye du woon loo xamee ni que man sama liggéey la. xalaas. léegi nag bëgguma auditeurs yi di wax naan partenaire yi jël temps moo tax dama koy enchaîner xalaas yi. Mhm. beneen bi ci topp. Mhm. jooyu xol la loo ji bu RFM Bambey. Bambey waaw. très bien problème problème famille. histoire bi dafa gudd ma sama sama cousinu papa. mo jaay suñu kër. waaw parce que sama bu jur sama papa mi ngi gaañu yaakaar naa 1999 2000. jamono yooyu la gaañu sama papa gaañu 2017. sama maam bu góor muy gaañu. bo sam papa xale bu goor la mo ngi liggéey mais boobu liggéeyam demeewul noonu ñuy miiras di jaay kër gi so turandoo papa jappal ko kër gi bu sam papa demee boy liggéey mu fay ko ek sam papa mom kër gi ya dogal ba 2017 sam papa gañu mais bu mu gaañoo ñu kay saraxal matul sax 40 jours sama papa yi taxaw na dañuy jaay kër gi man may taw sama yaay taw sam papa sama rakk dong la fi nekkal kenn liggéey gi seen doole demewul noonu mel na man mii maa fi liggéey te damay fortaatu di jaay ak ay fobeere laay def di fortaatu à part man kenn liggéeyoo fi ñu bëgg ñoo génne kër gi nag ci jaay doole ñu ngi dëkk waagu kër gi ay plus la terrasse ci kaw kër gi rek mën nañ ko jaay plus de 40 mais ñoom ci lu ñu wax ñu ne 27 millions lañ ko jaayee. sama bàjjen da daay ñëw bu ñu waxee jaay mu ne sama yaay bu ko kenn jaay ndax yaa fi yor ay xale bi ñu ko jaayee amuñu fu ñu jëm te kër gi sax mënuñu kaa jaay parce que sam papa moo moom kër gi am ñu taxaw daan ne kër gi moom ñoo ko bokk moo leen kër gi bokk ko te sam papa moo paasal magam mu tukki moo paasal rakk mu tukki ñëw ba tukki nekk ci kër gi ñoom daal yëkkati nañ ci kaw dëkk fa loolu mun naa ko nangu te kër yooyu yëpp moo ngi fi mais ci loolu ñoom ñu ne ñoo bokk kër gi dañ koy jaay moo leen kër gi kenn du ko jaay sama bàjjen ma sama turandoo heure bu ñëwee wax ma ne ko kër gi du ko jaay yaa ngi dégg ma jël kayitu kër gi téye ko heure bu ñëwee du mocc sama yaay du mocc sama yaay benn jour ma dem jaayi sama jaay sama yaay sama bàjjal ñëw fi ne ko sam papa bu mu gënalee bastaam kër gi changé wul tur bi kër gi sama tur papa ci nekk ba tey su neexee ma jaay ko maag sama mag ngeen pekk parce que sama tur papa ci nekk ba tey fekk na moom papaam sa papa delloo woon na ko xaalis xaalis bu nga gënalee woon kër gi mais looloo naxee sama yaay Soufiane ne ko man du ma ko jaay mu ne ko kat dañ koy jël jaay ko ngeen perte banaa nga nangu boo nangoo suñ ko jaayee gis naa ay kër yaraax dari foru yomb yoo xamante ne ay 10 millions 15 millions nga am sa kër gu yam di capp-cappal nànk-nànk sama yaay nangu sama ginnaaw fekk ma mu ñëw ne ko waroo woon a nangu mu jox ko kayit bi sax mu ne ko waroo woon def loolu mu toog benn jour woo sama benn koo xamante ne mag la ki sama yaay yëkkati suma juumu 5 million 500 jox ko naka am lii nañ ci am man moo léegi lii pour lan sans bàjjan de moo mun a kër gi 27 millions lañ ko jaayee ma ne ko bàjjan yow kër fii kër benn tali fii waagu ñaay un ah kër gu tabax kaw ba suuf warut a jar set millions loolu du yoon yaa ngi dégg ma ne ko léegi xaalis mu lim ay lim ñu bokkal sama papa papa ndey ak baay am nañ ñu bokkal sama sama papa yaay am nañ ma taxaw ne ko léegi lii pour lan sama turandoo mu ne kër gi sam papa sam maam la ko jëndaloon sama maam bu jigéen. ma ko léegi man nangu naa li ngeen wax mais sama maam bu jigéen bu mu gaañoo boobu ba léegi depuis 1999 bu mu gaañoo ba tey la moo tax miraasuñu ko ngeen bàyyi ba sama papa gaañu ngeen toog a des maam seen yaay dañ ko gëndaloon dañ koy miraas benn bàjjen boo xam ne gaañu na sax jël nañ jox ay doomam ñu ngi jox ñu loolu sama yaay moo xamul mu daal di jël yaa ngi dégg. maire bi jënd kër gi di fi ñëw di bàyyante chaque jour yaa ngi dégg mu ne may nañ mu dele six mois. boobu 2019 la woon yaakaar naa buñ ko jaayee mel na ñu dale 6 mois su nga mooy na xam jaayee ko am na bu pare baraaw ñu nañ génn yàlla baax na ñi wóor luyaas di wóor luyaas amuñu mais bu sœur bu toogee ñëw fi wekk na fi buntu dus bi wekk fi seize bi pour ñu génn sama rakk bi énervé am ku mu mu ne ko maire bi may nañ ñu délai amul droit di fi ñëw di fi génn bi jotagul ci noonu rek ñu waxtaan ak kooku ba mu jox ñu ba mu jox ñu ay yoon bu leer bu ñu jaar bu ñu demee employé domaine sama bàjjen turu papaam bu mu waxoon moo ci nekk ba tax mu jaay kër gi tur boobu sax new gi mais sama turu maam bi ba tey sama papa moom la ci bàyyi naxate ñu dem tribunal topp loolu topp loolu tribunal yaa ngi dégg bu ko toppee fekk avant ñuy topp loolu tribunal dañoo toog benn jour rek président Grand Dakar indiwul convocation dara woo sama yaay mu dem ñu koy signaloo benn kayit comme si ko ñun dañoo luyee deux ans nanguwu ñoo fay genre yooyu daal sama yaay bañ ne du signé sama rakk bi nag dañ ko jox kayit mu liir ko. comme seeb na ko doo ko lire da sama ya jàngul mu ne sama ya do si ma xam parce que jàngul mu ne ko si fekke bëgg nga ñibi sa kër ku say doom si wala ñu tejj la sama ya si ñëwul ñu jek jek jël auto auto bi romb di dem mu ne fu def mu féré dem tribunal lay dem mu yebbu ko tribunal ñu tok fa ba ngon jot wéru koor la woon da wàtti ge ñu tok fa ba ngon jot dogu passé auto bi romba jalé lako ñu ne ko rek mu ne eh. dañ koy mandat dépôt ba lundi vendredi du ñibbi police rëbës dañ koy fanaanal ba lundi ñu bàyyi ko police rëbës ba lundi nga demaat tribunal ñu naan kii avocat kii maire bi ñëwul ku jaay kër gi ñëwul ñu koy jàppoo noonu ba sama yaay am na fa lu mat mois ak ba fa la koor gi jeexee ba fa la ci koo xamante ne nii ay xale ndaw nga bàyyi boobu ma mii di xëy sa liggéeyu ma boobu mooy joxe dépense fay ndox fay courant suñu papa gaaw ñu jël ko fa téye ko fa. gis nga tëj nañ ci maire bi. en fait ko bàyyi ko woowaat nañu ko fa ba tey ci jeudi bi mooy dernier dele bi ñu leen may. ñu génn ci kër gi waaw léegi nag bu ngeen bëggee xam ne histoire bi di mujje hmm. da ngeen ñëw suba xalaas ci àjjuma ji. yii nga def nga war a bàyyi. di nekk ah! ay da ngeen ñëw di ngeen ñëw yooyu. mais lii c'est triste de. non daanoogul sax Ababacar. c'est compliqué. waaye ba suba ba nga dégg dégg man la tey ci alxames yi mooy délai bi ñu leen jox pour ñu génn. léegi jaay nañu kër gi. tolon jox leen ci 5 millions. voilà gis nga moy li may wax rek sama papa daf ma daan wax naan ma di liggéey def accident mën na si na koo jàppee accident de travail. Mhm. mais accident travail dëgg ci kat mooy liggéey bu retraité te amoo kër. waaw mooy accident travail bi gën a mag. léegi nag képp koo xamante ne yaa ngi rey sa bopp pour am kër. da ngay leeral sa ginnaaw pour boo fi jugee. ñi nga bàyyi ñi taxoon ngay rey sa bopp pour am kër bañ a sonn. mais ngi nii seen papa rey na boppam ci am kër pour ak njabootam am fu ñu dugg. Mhm. juge na fi génne nañ njaboot ko. moom la kii di laaj nit ñi lu ñuy def alalu njëriñ li yàlla wax si alalu njëriñ nit ñi lu ñu koy def. lu leen neex lañ ci def nga lu ñu koy def lu leen neex lañ ci def. loolu njëriñ lan dañ koo faaleeti yow réew mi faaleetul dara ki day laajte ban noo moo nekk ci seen kayitu kër turu papa ji wala seen turu maam. seen turu maam ko jënd bi koy jaay papa amul xaalis ñu jàppal ko ko mu am xaalis jënd ko bi ko jëndee nag changé wuñu hmm. tur bi tur bi. waaw hmm, moo tax ñi lay yaakaar ni ñoom seen maam seen papa moo am kër gi. maire bi moomoon kër gi faatu na paa bi ko jëndoon faatu na ki ko dencaloon faatu na. c'est que du ay fee yoo xam ni. day am ci fenn rek. Mm-hmm. day am fu bari mais lu bari dañu mën a wax. lu motax bu yi amé da koy gis ci commentaire c'est la même chose que chez nous c'est la même chose que même. histoire dina dina la expliquer bu wa police bi ñu demee kër ga seen kër ñoom. Mm-hmm. fekk ko muy muy muy faute histoire ba nam demee ba liñ leen wax pour ñu génn. Euh, ndeysaan dina wax ci biir wax sax ndeysaan bay interpeller président Diomaye. mais est-ce que police am na droit génne leen ci kër gi. je pense que tribunal mooy loolu avis d'expulsion tribunal moo koy def nee na ko dañ koo woo ne ko procureur bi nee na ngeen génn. loolu du ah ah procureur du la wax nee na ngeen génn. Ah. da koy bind ci kayit. bu subaa ñu yeggale ko. et procureur sax du nga génn c'est un juge qui doit te dire da nga sotti si kër gi. nee na loolu lañ ko wax nag. bay bu subaa kay di nga dégg Diagne. waaw ah, bu subaa est-ce que di nga ñëw. ah gannaaw ñëw par la force la. waaw mu yegg de il faut mu yegg. dinaa ñëwal rek. ah dinaa ñëw yow ñëwaloo kenn mën ngay ñëwal dinaa ñëw man kii fi mu rek ku xew. na waaj a dép waaj a déposé dama waaj a déposé sama premier de grève sama. <laughs> mel ko am xew ko ñëwloo kenn <laughs> mën ñëw ah. ah, ah. parce que tey da nga teel teggi say tànk teel a fay affaire cuuraay bi. mais mer naa leen. non man la gën a metti kay dama biddee. cuuraay mm, kenn nekk fa. ngénte bi nga doon def ci dëggantaan da nga koy defaat tey. non non tey aw ma ay aw ma laax laax sax am na fi may sa ne dama laax am na fi mais soow lan amul bonu nu ci soxla ñu ngeen ñun problème. solo yow ñu li lijjanti. waaw soxla nu woo gars yi nu ah, eh. waaw soow rek. waaw. soow ma nag dinañ ci def tuuti kii. Gloria. waaw ah, waaw tuuti. waaw ah, def ci lu nekk muskat. def ci eh, lu nekk eh ñàkk non viens toi toi viens d'abord. quand même c'est quoi cette affaire là. ba suba japp Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous référence.